na ngeen daw abonné ji ci sama chaîne YouTube bi Mystique 5995 TV képp ku ko tàppe ci YouTube bi da nga gis chaîne bi ñi nga xam ne ñoo ngi may suivre ci TikTok bi am na lien YouTube bu nekk foofu boo leen ci cliquer rek dana leen yóbbu ci chaîne bi macha allah man sëñ Abdoulahi Ndiaye ñëw ak yéen ci secret bu yéeme yoon boo xam ne yoon bu tumuranke la te defe naa ne dox ba dégg ko wala gis ko leen ko wax du yomb waaye muy baatin xaqiqiyan tey nag danaa dugg tuuti ci barhub ak asmaul barihatiya maye ci ñaari ismulaay asam di jéggul nag boroom xam-xam yi may déglu yépp lii may tudd nag ci tur ismulaay ahzam yi may tudd ak turu xuddaam bi may tudd ngeen baal ma ci xàq bu baax a baax a baax ndax dafa am tur yoo xam ne moom bind ko fàng daaj dafay xaw a yéeme waaye nag xam-xama ko laaj ak laaye biir ak jàppalante di wax nag ne video bi moo ngi concerné képp koo xam ne saa boo duggee ci ngoro ngoro ba yàqu wala képp koo xam ne saa boo duggee ci wàllu sëy ba am ci yaakaar yaakaar ba tas wala képp koo xamante ne da nga gis ne yow jigéen nga waaye góor ñi dafa mel ni rek dañ la dëppal masque maanaam bàyyiwuñ la xel dañ lay romb gauche droite comme si yow existé woo jigéen ju mel noonu mbaa góor ju mel noonu vidéo bi yow la concerné di wax nag képp ku yem ci video bi nanga ko aimé partagé ko ñëpp jot ci ndax lii may partagé day képp koo xam ne jëfandikoo nga ko dana nekk tawfiix gu rëy goo xamante ne boo daan dugg ci ngoro muy yàqu wala nga bëgg sëy mu jafe wala rab topp la di la teree sëy incha allah rabbi vidéo bi boo ci yemee rek santal yàlla kon nag amee leen côté partage ko loo leen mën li may joxe nag ab càngat la rek boo xam ne nit ki da koy bind jëm ci ñaari tur yoo xamante ne moom la jëfandikoo ak suuratul xuraysh benn suuratul xuraysh kese secret bii nag képp ku ko def rek jëfandikoo ko juróom-ñeenti fan nga koy jëfandikoo incha allahu rabbi lépp lu la doon gaalankoor ci wàllu sëy wala bu dee rab moo la teree am borom kër wala mu tere laa am jabar incha allahu rabbi yàlla dana def na mucc si da ngay bind ismulay ahzam bii di tam takkata jaysun muhammadaalun soixante-dix-neuf fois tom takkata jaysun muhammadaalun soixante-dix-neuf fois soo paree nga daal di bind turu turu asmaul barxatiya bii di barxa yoolaa barxa yoolaa danaa ko bind ci vidéo bi nga bind ko moom tamit 79 soo paree nga teg ci benn suuratul xuraysh maanaam lii laa fi xuraysh benn yoon loolu mooy nekk saafara bi saafara bi nag da ngay wut reenu daqaar boo wutee reenu daqaar nga def ko ci biir benn reenu daqaar nga tànk ci loo xam ne dana mat un litre maanaam wala 33 centilitre nga di ko naan su ko defee nag nga wut parfum bii di bintu el sudan la des si saafara sa maanaam la des sa siwo ba nga def ci bintu el sudan fekk reenu daqaar baak yépp a ngi ci biir nga sotti ci benn biteelu bintu el sudan waaw mu nekk mu ànd ak saafara si nga di ko sangoo man nag lu may wax ci baatin fu leer laa koy teg duma toog di créer wala di waxantu pour rek bëgg nit ñi déglu ma 79 bi lan moo tax ñu tàmm ko ci boo bindee nikaax nikaax mooy sëy baatu sëy nikaax dafay jàpp soixante dix neuf mun ngeen ko xadat ngeen xool waaw nikaax soixante dix neuf la jàpp boo jëlee tamit baatu kumti yu bi nga xam ne dafa dugg ci umu musaa soixante dix neuf la jàpp waaye itam boo jëlee saar bii di xuraysh mu ngi di idaafi xuraysh moom xadadu xuruufam yi soixante dix neuf la looloo tax xuraysh dugg ci umu musaa kon nag 79 bi ñuy bind tamtakata jayshul muhammadaalum muy ismulay ahzam bu mag ci barhut ak barxa yoola asmaul barxatiya tur bii di barxa yoola yooyu baatin ya ca nekk dafa dugg ci baatu nikaax waaye dugg na tamit ci wërsëg waaye dugg na ci kumti waaye dugg na ci lépp loo xamante ne luy xéewale nit ki la ba pare suuratul xurey si ëmb leen pour encadrer leen pour def kaaraange ba mu mat sëkk ak la cay xéewal ak la cay wërsëg kon nag loolu foofu lañ sukkandiku pour jox leen li mu 79 bi muy secret bu tumuranke defe naa ne daal dox ba gis ku leen ko wax <laughs> yombul te dana am ñoo xam ne bu ñu déggee lii ma expliqué danañ xam ne lii may wax du foowukaay yi baatin dëgg la du lu taxawaalu ndax ci biir secret yi ñuy joxe daf ci am yoo xam ne baatin la pour nga dox ba dégg ku la ko wax moom dafay dafay jafe lu dul rek ña ca yàlla may <laughs> macha allah kon nag ngeen partage vidéo bi aimé ko. ngeen abonné ci sama chaîne YouTube bi Mystique 5995 TV yéen ñi yem ci vidéo bi aimé leen ko partage ko te ngeen abonné ci compte TikTok Mystique ñi may laaj sama numéro téléphone nag tout temps buñ ma sonal di ma laaj ak ñi nga xam ne dañuy dem ci message yi di ma envoyé demande message pour débat man aw jot boobu numéro téléphone mu ngi ci sama biir compte TikTok bi xanaa ñi may suivre yéen gisoo leen ma affiché sama numéro ci biir bu ma kenn woowati naa lan la war nga may envoyé message beneen bi tamit mooy ñi woo tamit téléphone ak may woo ci whatsapp bi nañuy wax fulla bu ma kenn woo bu dul wàllu ñaan bu ma kenn woo di ma laaj naa ma loo xam ci lii ak damaa bëgg nga jox ma secret bii ci suuf man awma lu may joxe ci suuf li ma war a joxe ci kaw ñëpp danaa ko joxe ñëpp bokk ci ku bëgg leneen ci suuf nag lu may maye awma lu may maye ci ay tur yàlla wala ay sekere ci ay whatsapp ak yooyu aw ma jot bi ak ñi di ma ko laaj naa ma loo xam ci léegi aw ma temps boobu sama temps mayi ma ko te danaa leen wax sax lu gën a xoromooti ndax nit ku nekk danga koy respecté ci doxalinam képp ku ma woo ci whatsapp bi di ma wax wax yu ñàkk fayda wala ci appel direct na ma dugg na fii di jël sama temps dootoo ma déggati ndax dama lay bloqué waaw loolu moom am naa fulla boobu kon nag nañu joxante certe te bàyyi wante xel ci li nga xam ne moom la ñuy doxee di ñaanal ñëpp jàmm nag macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu